الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على سيد الوجود سيدنا محمد سيد كل الجود وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yu tedd yi ñuy seetaan ci àdduna bi yépp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara tabaarakallahu di di leen ñaanal di sàkku ci yéen itam ngeen ñaanal nu tabaarakallahu di ñaanitam liinu nekk di weeru koor gi ñu ànd ak yéen ci ba mu ba léegi ci wareefu Ramadan ngeen di béga leen teeg nun ñu sant leen ci gërëm leen ci ñaan itam borom bi li nuy def yépp ci xeeti jaamu yàlla yàlla na nu ko yàlla nangul ñi ci zikkar istixfaar yi salaatu ala nabi njàngum alquraan yi sarax yi jokk mbokk yi yépp yàlla na ko yàlla nangu te fulal nu ko ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko itam nu ñaanal leen yàlla yàlla yéegi leen ci àjjana yi gën a kawe ñi tawat mu saafara leen ak wér ñi nga xam ne ñooy des di dund may leen ñu gudd fante ànd ak wér te boole ci yor tabaarakallah yàlla na ko yàlla def di nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa adduna yi tabaarakallahu eh, di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi muy Seyda Fat Bintu ñuy ziar ko bu baax a baax ziar njaboot ga ziar borom kër ga ziar dëkkandoo yi noonu la ñuy def ci oustaz Hassan tamit macha allah di leen jottali soppi yi nga xam ne ñu ngi leen di seetaan yëpp démb dama dajanteeg benn xale bu jigéen mu seen ma daw topp oto bi ba ma taxaw mu ñëw ni ma oustaz dama lay yóbbante ci Seyda Fat Bintu mu nekk sopp naa ko lool te yàlla tax. waxal Moussa sa ne ko sopp naa ko lool te yàlla tax commencé di lim di lim ma ni ko waaye neel waa sopp naa waa kër ga rek tabaarakallah waaye yooyu dafa nekk ay yiw su ko defee ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di di di leen jottali nuyoo sopp yooyu yëpp tabaarakallah et di nuyu itam ñi nga xam ne ñu ngi ci bitti réew te du ñu dañ di ànd ak ñun du dañ di ànd ak ñun di suivre émission bi ku mel ni ñoom soxna Kiné Sarr ñoom soxna Fatou Touré ñoom soxna Ami Mbeng tabaarakallaahu ñoom Mariama Diallo ñoom ñëpp nga xamante ni bii du ñu dañ di suivre émission Mariama Diallo sa soppi boobule ndeysaan amul jamono bu nuy bu muy toog te du ma envoyé message ne ma da ngeen xat rek moo tax woowu ma leen waaye tabaarakallaahu di la jottaliwaal tamit nuyoo soxna euh, euh, Fatou Mor Gueye moom tamit déggoon ci nañu démba mu ngi gën a bég macha allah di di gën a ñaan yàlla mu ne dara du ko raw dara raw ko ci la yooyu yëpp nag ay xeet la ci sant yàlla bu baax a baax su ko defee ñu ngi ñu ngi gën a gërëm suñu borom ndax di def loo xam ne ay nit dañ koy rafetlu te fekk ne dafa rafet nit dina def dara sax du rafet mais nit ñi seen mbaax ñoo koy rafetlu mais ngay def dara mu rafet ba noppi nit ñi di ko rafetlu dafa rëy tabaarakallaahu xam nga Demba Sane maa ngi lay wax ne la euh, am na mbokk yoo xamante ni bi dañ dul dañ dul rafetlu nit ku def lu rafet wallaay ndeysaan te loolu démb bi ma génnee kilifa bu mag ci wàllu diine woon na ma ne ma loolu bu leen ko bàyyi kilifa gu mag ci wàllu diine mi ngi ñuy seetaan nee na ma loolu bu leen ko bàyyi fu ngeen gis lu rafet encouragé leen ko mu ne loolu nit ñi nañ leen tuddee lu leen neex mais fu ngeen gis lu rafet rek encouragé leen ko fu ngeen gis loo xamante ni bi rafetul découragé leen seen borom boobu donc kon alhamdulilah boo dëkkee nit mu def lu rafet. da nga koy wax. xam nga démba. suñu suñu maire bi ñu dëkkal def na lu rafet démba. parce que dajale na dajale na waa dëkk ba. Mhm. boroom xam-xam yi. Mhm. ñu dem ci booru armeel mu def ay tànt mhm. jàng fa ay kaamil alquran. ñaanal ñi jiitu ji ca dëkk ca dëkk ba. allahu akbar xam nga loolu rafet na. ba noppi génnee ci ñaqam jox leen. ba noppi def ay ndogu. woo néew ji doole yi. ñu ñëw. mu jox leen ndogu ñooñu ndogu. Mm-hmm. te li si Adja di wax. cappateen la te loolu tawarkal ma makaroona am na makaroona donc loolu nekk na lu rafet moo tax gis nga euh, lu rafet nañ ko tudd lépp lu rafet waaw rafet nañ ko tudd lu parce que doomu aadama yi dañu soxla ñu jaamu yàlla ci ñoom donc yooyu nag dafa rafet am na jaamu yàlla yoo xamante ne bi ñu fi yëkkatee ki ma waxoon ne euh, mooy moo ma waxoon ni ma lii mooy sama fond de valise mm-hmm. am na jaamu yàlla yu commencé réagir mm-hmm. am na ñu ma laajoon ni numéro am jox naa ko la seen doole tollool jëflante nañ ko ak moom am na bi indi nañu tissu mhm. jox naa ko ko jébbal naa ko ko mhm. ah, ñu ngi xaar tamit ñeneen mhm. réagir ci ay néew ju doole yu mel noonu jokk naa ne am nga bu yëpp ñëwee dina dina mujj sax di séddale parce que ñu bëreen koy waajal dañ ne rek nañ leen may tuuti koor gi ñu féex ñoom Zeynabu Seck ak ñooñu madame Dia mm-hmm. démb rek mu may woo ne ma fàttewuma ko de dama xaw a jàpp rek ndax koor gi wallaay ñoom Anna Ndiaye wallaay ñépp a ngi koy waajal waaw yooyu la ki fi waxoon tamit ni mm-hmm. moom tamit dafa am problème mu luyaas mm-hmm. am na ku ma wax ni naa ko sms numéro sms naa ko ko xëy na du bari mais mu jàpp ci domp ci sab la bokk wax naa fi benn bis man yi boo gisee melentaan yi eh, am am am ndam yàlla tudd leen ci alquran tudd seen ndam parce que dañuy solidarité dañuy solidarité wax na ah. benn melentaan bu gisee fii njëriñ day dem dugg ca njëriñ la dee ca pour beneen melentaan bu ñëwee taxaw ci kawam jëriñoo njëriñ allahu akbar ndax solidarité boobu donc loolu nag ci jullit ñi la gën a yaatoo mm-hmm. la war a gën a yaatoo kon yàlla na ci yàlla defal ndam ba ñuy dimbalante di taxawante di di dooleelante yàlla nañ ko yàlla defal sëy la kàddu gi mm-hmm. nga nuyoog mbokk yi mm-hmm. su ko defee soxna ci ne jaañ nuyu nañ la bu baax sama jigéenu bopp Adja Khady Sy tabaarakallaahu madame Sall Aminta Racine ziar naa leen bu baax moom soppi yonent bi la alayhi salaatu wasalaam mu koy nuyu ak sama yaay Adja Codé Diagne macha allah tabaarakallaahu soxna noonu la aouzu billahi samii al alim min alsheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi munzalul kitaabi wa haazimul ahzaabi wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias fu ngeen mën a nekk ci wareefu Ramadan bii nga xam ne ndeysaan mu ngi nekk ci fin bi nag di waaj a tàggatoo ak yéen ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñi tëdd ci lal yi ñi toog ñi nekk ci hôpitaux yi ñi nekk ci prison yi ñi nekk bitim réew biir réew mi ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu ni ko oustaz Mor waxee comme nuyoo na rek nuyoo bi benn la ñu sof suñu nuyoo yëpp parce que ñun ñëpp ñoo sof bokk ay soppe euh, macha allah ñoom Awa Banant ñoom Ramata Diop Roy macha allah euh, rawatina nag waa Suède yi ak waa euh, Norvège yi Assane foofu moom demagoo fa Norvège Oslo <laughs> xam nga fi Dakar sama ruq yëpp xam nga ko <laughs> <laughs> waaye ñoom ñoom euh, Adja batu mbay ak ñoom Adja Ami Ndiaye Ami eh. Ndiaye moom ñëwoon na bi ñu may sargal fii ci seeni Sénégal bi moom macha allah taala mi nga xam ne nee na ma comme waa Pape An joxula ci jën yi man jënd naa jën yónnee la bu la dara metti oustaz Pape An moom <laughs> temps yi dafa raar ma ko fenn fenn saa ko muy yëgle ay conférence après koor gi mais koor gi fu mu nekk wax naa ko démb téléphone waaw bu ñu dogee di waaw ma ne ko président Youssou Ndour nee na da ngay rediffuser rek tournée to Sira ma ne non ma ne président Youssou Ndour nee na Pape An day rediffuser rek. léegi tournée tout direct. kon yéen maa leen ëpp chance parce que man barki démb ba RFM fekk ma fa. daal nuyoo baa ngi noonu man nag yóbbante yi bëri na koo xam ne léegi nag dama commencé sax numéro bi dama koy commencé di ko waaj a jaay booy ba nga autorisé ma ndax yow ak Oussa Tayib Socé moom it ñu ngi koy nuyu macha allah taala di ko ziyaare moom tamit bu baax ak ñoom Soda Diop di wax ne Adja Abibatu Mbay fële Norvège ak Adja Gaas sama mbokk yooyu nga xam ne macha allah taala ñoom Gaas loo Danemark. Mhm. macha allah eh, ñi ma yóbbu woon Allemagne te te ne ma Berlin xaw ma luy Berlin ndekete Berlin mooy capitalu Allemagne si anglais foofu ma dem ma ne Allemagne laay dem ndeysaan ñooñ ñëpp ma leen di ziar. su ko defee oustaz tey nag ñu am fi benn kii bu xaw a metti boo xam ne maam la ci ba Seydou Ba Dieynaba Seydou Ba mi ñu bokkal kër gi xale bu yaru boobu macha allahu taala kër gi yëpp moo fi gën a yaru mm. waaw maamam euh, di soxna Marème Baal Adja Marème Baal génn àdduna di yaay ci monsieur le ministre Amadou Ba di maire bu baax nag maire man ngaa xaw ma ko en personne mais ñi ko xam yëpp ñoom Aïda Mbaye ñoom waa HLM ñoom Khady Diop ñoo ñëpp ñu ngi leen koy jaal ndax maire bu bëggoon diine la waaw ñoom Asi ak <laughs> Asi ñoo ñu ngay wax Asi keneen ki nu mu tudd bareetu <laughs> añ foo leen gis rek maa ngi leen di wër gendarmerie conk laa leen di yóbbu Asi ak Mareetu añ ñoom moom xam nañu xam naa gendarmerie laa jëm ak ñoom seen yaay maam euh, Marème Baal euh, yaay la ci amadu Ba ministre ñu koy jaale ñëpp di ko jaal Aïcha Anne ñoom ak mbooleem soxna Amadou Ba madame Ba di ko jaal ñoom Kubra Anne ñëpp euh, mi doon duwanoo Sankare nee ne amen Marème Ba hande o rutte jomiraɗo yummum amadou ba ministre doon duwano onon fof yo allah yurmomo yafomo yo juuɗe moƴƴe jabbomo yon boye sakkanademo sohna ma may diale wajurom bo gor seydou ba moom tamit allah ak yaayam ñu nga fële ci amérique oustaz euh, nuyoo baa ngi noonu mm. tey nag defe naa ne euh, macha allahu taala kaaw dafa léegi moom it dafa bokk si rang bi ndax nee na man tamit damay organiser laylatu xadar ma ne ko kaaw mënoo woon a bàyyi sa laylatu xadar ba bés bi dellu si nga ngénte mu ne léegi naa la laajal <laughs> ndax la xadar dañ koy ngénte ndax alaaji maali Kase ñëw na jox ma ne ma il faut que ma ñëw léegi nag kaaw nee na moom it da koy organiser léegi nag dama bëggoon a jël bu kaaw bi ñu ngénte ko léegi nag ma leen di laaj ndax am na ngénte sa <laughs> asan sa sëriñ asan fadal après incha allah alhamdulilah moom moom leeraloon na ko démb sax ah. dafa ne woon démb hmm. damay dem ca kaaw tegal ko ndogu waxtaanal ko ba xelam am dal ba dem ci Hajji Malick kase waaw léegi nag damaa am beneen bu sew bu dugg ci diggante ma bëggoon nag kaaw ngénte au lieu que mu def leelatu xadaram bu xaar ba bés bi dellu si mu ngénte ko ah, waaw saa loolu mën na nekk wala mënul nekk na xaw après sa téere yi <laughs> dafa mel ni Hajji Malick kase ak kase la barak de <laughs> ah, alaaj maari ka sa ñàkku rab ah. xam nga foofu sama mbokk yi fa la ñu nekk macha allah taala te maak oustaz pap maak euh, oustaz pap kan faal ñoo fay nekk moom nga xam ne moom moom kese sax mën na gàmmu gàmmu gi ku baax la sama xarit la moom bu yàgg de longu nag suñu xarit la ñun ñëpp dinañ ko invité nag bés bu nekk ma ne ko TFM religion bu commencé incha allahu taala dina ñëw Pape Kane oustaz Mor a ngi nii wax naa ko sa yóbbante ku baax la maa ngi koy nuyu bu baax wallaay ndeysaan wallaahi ndeysaan dafay jël crédit di la woo ngeen di waxtaan ci yàlla wallaay ndeysaan wallaay bi jeex mu changé waat crédit ndeysaan macha allah macha allah yàlla na ko yàlla fay ak euh, Adja Aïda ñaan itam macha allah taala parce que am na ñoo xam ne dañ ñuy dégg mais du ñu gis aadama sama benn doom boo xam ne ci alimatu géey la ñu tase woon ñooñu ñëpp ndeysaan màgget ñas nekk ay xale yoo xam ne ah dégg bi moo gën a neex gis bi mais teewul dañoo bëgg émission émission bi duñ ko tardé. Mhm. dañu la ciy wax lu bëri di la wax dañoo kontaan nit ñi nit ñi nit ñi seetaane ak nit ñi di wax. ak mhm. neexoon ñu mën a jàkkaarlook ñun. waaye ndey saan fii nag ku fi yàlla xañ lu ne ëllëg yowmal qiyaamati sa yëf dina gën a neex kon ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar waa Gaspard Camara mhm. comme ni waa maternité bële defoon rek ñoom it noonu lañu ñu def waa Ndofane euh, maire bi euh, mu ngi ñuy nuyu Samba Ndiaye moom it mu ngi pare euh, conférence am le huit mhm. xam nga léegi oustaz bu ñu waree rek le premier maa ngi Gaspard le 8 maa ngi Ndofane le le le le 15 nag Richard Toll lañ jëm ca euh, consommation locale waaw incha allah ma jox la foofu <laughs> waaw. alhamdulilahi rabbil alamin alqaili fi muhkami tanzili inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin alqaa'il iltamisuha fi l-ashri l-awaaxir wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin Oustaz Mor ginnaaw bi ñu sante yàlla julli sëlman si ngeen jëmi def sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay nuyu di la delloo nuyu di la ziar di delloo ziar sayda comme ni ñu koy defee saa su nekk leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen fan yokk seen xéewal yokk seen sutura yokk seen xam-xam bàyyi leen si kanam njaboot gi ay ati ati ati ati ati ati at fa tabaarakallaahu suñ borom sañ na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def di ziar bu baax mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci réew mi ak ci bitim réew waaye surtout suñu mbokk yi nga xam ne ñu yëngu si internet bi saa su nekk dëgg yàlla fan yi ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte si waxtaan wi ni muy tëddee ak jàngale bi ni nga xam ne noonu lay amee solo fa tabarakallahu euh, oustaz Mor Seyda di leen jottali nuyu euh, sëriñ Maam Alfa Sy bu Cheikh Alxaaji Abdal Aziz radiallahu taala anhu démb mm-hmm. daf ma woo si guddi. Mhm. ma ne ko asang ah bi man de comme dañ jokkoo woon fan dama la doon waaj woo. Mhm. ma ne guddi na mu na ma mukk ëpp naa wax. Mhm. mu woo ma ne ma ëpp naa wax ma ne ko mu ne ma man maa la woo bàyyi ma wax. lu jataay bi. rafetlu xam-xam bu rafet bi fiy génn. waaye itam ak ñi nga xam ne ñoo koy jariñoo. di ko ko wax moom waaw. mu rafet lu ko lool lool lool lool lool sax yàlla xam na ko ñaanal leen yéen ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nee na bitim réew la newoon mhm. barke démb la ñëw mais daf ko doon topp ba nga xamante ni macha allah daal nee daal xolam sedd na lool lool lool lool moom tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax ak njabootu Seydil Hadji Malick yëpp radiallahu taala anhu yàlla gën leen dëgëral gën leen sàmm di ñaanal kilifa diine yi yàlla bàyyi leen fi si kanamu njaboot gi ndax am na ñoo xam ne bu ñu la woowee di rafetlu li ngay def loolu sas la soññ la ndax ku ne xam na ne macha allah bu dee xam-xam rek si ñoom la ëlbatikoo ak yar ak yar waaye bu ñu ñëwee ba di la wax lu mel noonu si looy joxe wax dëgg yàlla oustaz loolu mbaax rek la mbaax rek la kon yal na leen yàlla fay yiw di bu baax monsieur le maire Abdou Nar Mbeng ak ay soxnaam aji ndooy wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen terang ak seen xéewal ak Khady Diop soxnaam la itam nga xam ne doomam ay waneer lañ waneer yi nee nañ kontaan nañ si yéen waa nee nañ yu yu baax yi ngeen di wax si ñoom yëpp si si yéen la nekk oustaz ñun tamit dafa am koo xam ne saa su nekk kër gi daanaka bu dul weeru koor fa la ñuy añee ñi si ëpp muy maire Abi Sow bi nekk fii point am benn frère bu génn àdduna démb ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaare aljana maa ngi ko koy wax di ko jàll si turu gaa yëpp ak kër gi yëpp wax dëgg yàlla di suñu maire maire bu baax maire bu yaatu léeg-léeg gaa yi sax dem lekk ba pare duñ fay waaw gaa yi doo leen ma fay mu ñu nekk heure bu ñu neex la ñuy fay te coow du jib ñu koy ñaanal frère am yàlla ko yàlla gën a jàppale ak sali ma fa nekk di liggéey di jarbaat si kii génn àdduna professeur Diouf nee naa leen mu ngi leen di nuyu depuis France waaw waxoon naa leen waxam moom tamit leen di ziar bu ñaan itam bu baax a baax moom yàlla yàlla kattanal ko amiin mu ngi noonu incha allah dafa ay naal yoo xam <coughs> su ko nit dee naal dama koy ñaanal yàlla mu fóot ko ba weer ko ba wéri ko ba paase ko ba lem ko ba rangé ko xelam dooga dal yal na ko yàlla mottali ah, amiin oustaz oustaz yére boobu dina dina alaa daw ma de macha allah am loolu noonu lay demee incha allah ma dellu la kàddu gi noonu lay demee ci wax gars yi mën nañ ñëw si bu dee facebook bi ñu def wareef ramadan incha allah nga dama la waxoon ni démb ma ni mm, ak ñeneen ci des mm. jamono bu nekk mm-hmm. dañuy try pour dugg wallaay ak oustaz Fat Kane muy jafe waaw bàyyi sanam <laughs> su ko defee Seyda Aïda am Aïcha am nañ ko ligne ci ligne bi. ci ligne bi waaw ñu bàyyi ko mu nuyoo. ndax bi mu fi jaaree. moom nag alquran ma te tey bésu alquran tey te tey mooy laylatul qadri. Mhm. di di di di guddik alquran. ñu bàyyi ko rek kemtalaayal ñaari minute ñetti minute yu mu ñu ciy may. Mhm. nu loo ko soppe yi nga xam ne ñooy ay soppeem. Mhm. Euh, dégg ko macha allah. rakku jàmbur asalaamaaleykum. waaleykum salaam rahmatullah. waaw jaambur noo def. doomi jaambur. <laughs> Uh, soxna Galas. waaw soxna Galas na nga sa Mbacke maa ngi ziar. <laughs> maa ngi ziar. <laughs> waaw. dooral ma sama géey Balaye sa ji rek. wallaay ndeysaan géey géey géey Balaye sa. Mm-hmm. waa kay nga bàyyi la sant Mbacke ndax ñu am uh, addiye ci korite gi. ah non ah, jeex na waaw waaw soxna Maye suñu bàjjen mu ñu. Ah. ayca eh non non kii il faut il faut mu duggaat. jëla jëlaatal leen nu ko waaye bu ko yàlla dogal. dina ñëwaat incha allah taal dafa dagg mais dina ñëwaat incha allah mm-hmm. eh, xam nga bu ñuy waxtaanee eh, laylatul qadri. xam nga tey mooy àllarba. Mm-hmm. di ñaar fukk ak juróom-ñaar. maanaam jëm ñu jëm guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar. Mm-hmm. parce que koor guddi la ñuy commencé compter doog jëm ci bëccëg. koor maa ngi doon kontaan sax defe ne ñaari kër rek a <laughs> sa bàyyi léegi ñu muy guddik alquran. ndeysaan di guddik jaamu yàlla. wallaahi di guddi naafila. Mm-hmm. di guddi gu nga xamante ni bii. bi mu commencé dafa yàgg. xam nga mi ngi commencé woon ca nisu Chaban ba li ñoo tuddee laylatul baraa laylatul du'a laylatul qisma laylatul ijaba mooy mooy laylatul baraa di nisu Chaban fa lañ doon waajalee laylatul qadri ba tey bi ñoo ngi ci yàlla ñu yàlla may ñu fekke ko amiin yaa rabbal te buñ ko fekkee lañ cay def yàlla nangul nu ko mu tuuti ak mu bari yàlla na ko yàlla nangul muy guddik alquran nag loolu tax bu ñu amee Seyda mu ñëw ci bëgg ci barkeelu ñaari baat ak ñetti baat mhm. ak lu mu ca wax su boobaa dana nekk loo xamante dana ñëw danañ ko béggee mhm. kon nag guddi la boo xamante ni bii ak guddi yi ko romb mhm. nelaw ci jeexal kook nelaw jaru ko jeexal kook nelaw jaru ko xam wax naa la fi benn bis ma ni la soo dee def bis bu nekk nga nelaw sept de temps bon dee def bis bu nekk nga nelaw sept de temps soo dundee juróom fukki at juróom benn fukki at sa sa ñaar fukki at yëpp nelaw la. vingt ans yëpp nelaw la. ndaw nelaw yu bëri. ndeysaan xam nga wax naa la may la sëñ Moustapha Xasaay daan na wax ne sëñ Touba bu muy doog a sëñ ci Touba da daan wër ci ko ñi naan wàcc leen lal yi te ñëw ci der bi. wàcc leen lal yi te ñëw ci der yi. loolu pour wan nit ñi ne leen mu ne bis na des na baraba ngi ñëw. Mhm. jamono ngi ñëw joo xamante ni di tëdd ba tëdd loo bëggul tëdd. allahu akbar di tëdd xam nga am na ñoo xamante ni bii ba ñu deewee ca jamono yàgg ba léegi ñu ngi tëdd. oustaz dee sori na. boo demee fii réanimation fii. allahu akbar am na fa tëdd 6 mois ñu ngi nelaw. am na ñu ne la at. dem naa. parce que Sharon de tëddoon na lu ñu. waaw mu ngi nelaw ba tey defe naa de. dem naa. arrière Sharon dem naa fële Italie moom la xam tëddoon na lu bëree bëri. dem naa Italie. Mhm. Euh, suñu benn mbokk boo xam ne boroom këram. Mhm. li mu nelaw est-ce que motul vingt ans ba léegi mu ngi nelaw boo demee hôpital boobu dañ naan la kii nelaw na quarante ans mm-hmm. kii nelaw na trente ans kii cinquante ans appareil moo leen di dundal mm-hmm. mais seeni njaboot néegu ñoo dindi appareil yi mm-hmm. ñuy nelaw quarante ans laa la wax cinquante ans xoolal yooyu nelaw kon nag hôpital bii boo demee tey Fann neurologie wala nga dem hôpital réanimation yëpp boo demee nelaw ya fa nekk rek nga xam ne moo tax léegi léeg ma ne jullit bu nekk bu toogee ba xaw a bew nga xaw a bég war ngay doxantu 18 heures ndax dañu leen di yéex a ubbi nga yërndu rek ci seen kii yooyu seen hmm, fenêtre yooyu biti ji rek même boo fa amul malaat boo ñibbee di nga gën a jaamu yàlla te di nga xam ne ndekete nelaw tout dama am benn bés may waxtaan ndeysaan ma ciy nuyu benn xale bu jigéen bu ñuy wax ndey Issa Loum ak magam Abibatu Loum jabaru tontoo kadeer gëj naa la dégg Abibatu maa ngi lay nuyu hmm. mu ne ma soxna Faat Bintu dama bay déglu benn bés ngeen di waxtaan ngeen ne nañ jóg di julli fajar. ndax nelawi bàmmeel kenn xamul nu mu toll. nee na boobu ba tey ñemeetuma fajar fekk ma ci kaw lal nee na bu may nelaw ba si yàgg ba xalaataat nelawu bàmmeel rek. Mhm. neen damay tëb jóg toog. Mhm. ma ne wax nga dëgg. dëgg la oustaz loolu rek laa ci doon kii moo tax. bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu amee guddi gu. guddi gu mel nii waaw. dañ ci profité. nañ ci profité mhm. parce que euh, li wax naan euh, da ngay def sa koor. mu nekk koor goo xamante ni dangay ngay bi mooy manam saw moodja saw moodja da ngay jàpp ne gi mooy sama dernier koor ko teewee julli gi may julli mooy sama waaw dafa mel ni sëñ Galas ñëwaat na soxna Galas salaam waaw waa ndeysaan bisimilah tafaddali. ñoo ngi ziar ci sahru Ramadan al mubarak. bu baax. di ziar ci dañuy wax métitu yowmal qiyaam am ni yàlla génnee. Mm-hmm. ndeysaan ñooñ alquran. Mm-hmm. yàlla na yàlla boole euh, du dañ taxaw di. Euh, rammu jaam bi nga xam ne da ko doon jàng yàlla dimbali ma ci yàlla tin ma ci. koor taxaw di rammu bi. ndeysaan yàlla dimbali ma yàlla tin ma ci. xam nga dañuy wax ni jéggim siraat dafa metti mhm. wa in min shay'in illa min waariduha wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya allahu akbar waaw kon waaye nag su mënula jiir dina taxaw yàlla day musal ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ni ñu leen di musalee da ngay dégg jàngalekat yi ni la am na ñoo xam ne bu ñuy jéggi siraat dañuy naaw mm-hmm. waaye fan la doomu aadama di jële laaf yi muy naawee kenn bi daalew ko woon mu woon suñu waaye nag suñu boroom a ko baaxe ba alquran di ko koor taxaw di ko ba mu yebal malaaka mu ni jëfit di ko cas naaw ak moom ba buntu aljana mu ni ko fa teg jéggi jéggi ko siraat jekki metti suñu boroom tabaaraka wa taala ni yow ma ni ziban nit ki dekki tiit ba fekk dekki wàll bi jaaw fekk bi muy dee xale la woon waaye sunu boroom téere yi di naaw mbaa malaaka yi di joxe téere yi jëf yi ñi ñu leen jox ci seen ndeyjoor ñu safaano ñu di leen jox ci seen càmmoñ yow mi nga xam ne yow suñu borom jimbali woon ngay jàngkat alquran bi di woorkat bi di ak ajkatu màkk bi kés mhm. benn malaaka du la jaare ci sa càmmoñ di la jox sa téere parce que bi ngay wër kaaba bi yaa ngi ko doon wëre ci sa wetu càmmoñ yaa ngi wëri sa wetu ndeyjoor na le mu féetale ne nag kaaba gi féetale ci sa càmmoñ ëllëg kaaba gi mooy dox sa digganteeg te téere bu ñuy joxee càmmoñ. waaw mm-hmm. akbar. yal nañu ko yàlla nangu. amiin yaa rabbal aalamiin. yal nañu borom bi defal xaj. amiin amiin Seyda. bu ñu demoon ñu yàlla wërsëgal ñu dellu màkk. amiin amiin yaa rabbal aalamiin yàlla wërsëgal leen ñu dem màkk te sunu borom wërsëgal ñu at yu ñu nangu. amiin amiin amiin Guèye amiin. ñaane ko ci bés yi nga xam ni bési nangukaayu ñaan la. amiin ci bési alquranul karim mii nga xam ne sunu borom ma ko wàccee ne inna anzalnaahu fii laylatil qadr mm-hmm. leelatul xadr bi nga xam ne noo ngi koy wër ci guddi yu mujj yi mm-hmm. di ko wër ci guddi yu tool yi mm-hmm. diggante fukk ak ba fukk ak juróom-ñaar diggante ñaar fukk ba ñaar fukk ak juróom-ñaar diggante ñaar ñaar ba fanweer mm-hmm. ñu di ko ci wër yàlla nañu yàlla dajale ak moom amin amin yaa rabbal alamin moom la ñoo ñaan bu ñu nangu ci allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna amin alquran a ñëw di layal lépp di indi xéewal lépp wala ya'tuunaka bi masalin illaa ji'naaka bil haqq. ndeysaan allahu akbar. lu lu fi jaaxle rek lu fi jaaxal nit rek alquran indi na lay dëgg. lu fi jaaxal doomu aadama yi alquran indi lay dëgg. tey nag bu ñu demee ba daanaka ñu xaw a jabolise ñu alquran jabolise jàngkati alquran yi lu ñu def ñu critiqué ko. Mhm. musul dañ musula dañ di am ci yàlla yónni woon jox ko alquran dañ ko di woon. Mhm. yow mi ab dof nga. ndeysaan ñu ko gënuñ leen seen yonent boobu ab dof nga. ndeysaan ndeysaan. bon pour am loo nangu. wallaay ndeysaan yàlla ko teg waaye afay tege na la faj. Mm-hmm. ku séddoo yàlla na mm-hmm. yàlla séddee weeru koor. soxna Aïcha. xam naa kon nag guddal naa sax. waaw déedéet déedéet eh doyaluñu doyaluñu doyaluñu. alxuraanul karim ma mel noonu duñu ko doyal mu. wallaay doyaluñ ci wallaay doyaluñ ci géey. ko doyal. waaye yéen ñi seen yaatal gi ngeen yaatal yal na yaatal leen. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. ngeen di ngeen def amal na jaami yàlla yi te nag wa amma maa yanfa'u fa yamkutu fil ard. wallaahi yal na yàlla yaatal ndax ñi yàlla nee na ñi amal nit ñi njëriñ rek dañ fi yàgg. wallaahi ndeysaan wallaahi. soxna Dieng ba nag noo ngi koy jaale maamam baax la comme ko waxee. wallaahi ndeysaan. doon de yal na yàlla yokk yërmande. amiin yaa rabbal aalamiin daan wax bu ñu toogee mu ne ah man de tey duma añ gis nga lu tax mu ne ah jay na ba ñëwul du ma am ku ma may du ma am ku ma seexal jay na ba dikkul allahu akbar yal na ko yàlla fay sa piir mande ci moom maama yal na yàlla defal ko aljana firdaws amin amin amin alayhi salaatu wasalaam nee na woon wa isa saaltumullaha fasaluhul firdawsa mm, fa innaha alal janna wa awsatul janna wa minha tasbiru anharu janna amin Euh, kilifa yi seetaan di leen seetaan foofu yal na yàlla fayal leen boppam te yàggal leen fi may ñu koor yu ñu nangu amiin amiin amiin defal ñu barkeb alquraan karim amiin amiin barkeb weeru koor ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi amiin yaa rabbal alamin amiin est-ce euh, waaw sa rakku jàmbur waaw man <laughs> ah. euh, magum naara <laughs> naara magum kenn أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم الماء أفرأيتم النار أفرأيتم الماء أفرأيتم النار maata magum naara te naara magul kenn maa maa maa ngi nuyu xalif général Thiénaba Cheikh Ahmed Tidiane Seck <laughs> waaw Cheikh Ahmed Tidiane Seck suñu bos. suñu bos moo ñu koy jàmmanteel sëriñ sëriñ Abdoul Aziz Al Amin. nee na woon bàyyee naa leen ak xalif général bu cee na ba waaye ba nu yeggee neex na te jeexul. wallaay dëgg la barakallah fiik macha allah. daf ne ku ngeen ko wax ñu ko wasalal naa yet la naa lan naa larab naa. famina rakubuhum wa min yaakuloon mu ni baati alquran yi ni ngeen koy génnee neex na metti na waaye boole naa la monsieur Ahmed Cheikh Ahmed Tidiane Seck waaye bu ñu yeggee la ne ah kooku li mu ma defal li mu ma defal ci alquran kenn mu koo gis moo ma wàllu saa yu ma ne tegg ba jékk di cinq cent mille yu ma ni lii ko def ci boole yi wallaay barakallah fi lii ko def ci boole yi alquran yi barakallah jërëjëf jërëjëf Guèye jërëjëf barakallah fi jërëjëf Guèye jërëjëf ndeysaan kontaan nañ bu baax macha allah. xam nga alxuraan moom moo mel noonu. Mm-hmm. xam nga ñoom mag ñi dañu amoon possibilité. Mm-hmm. pour di ko cerner alxuraan. Mm-hmm. di ko di ko téye alxuraan pour du échapper. xam nga xale bi mën na am xel. di mokkal alxuraan commencé ci kaw bu ci suuf. mais nga jékki-jékki rek ne ko baat sàngam ñaata yoon la ñëw. ci téere bi day jafe ci moom. ak baat sàngam ñaata lañ koy bind. day jafe. xam nga par exemple léegi boo nee diw euh, bismi bismi ñaata yoon la ñëw ci alxuraan. bismi xam nga léegi bu nekkul ci bopp saar dañu mag ñi mag ñi dañ ko doon tënke fawun na fawun na dañ daan wax fa fatiha nam li su ko defee nga xamante ni bi boo ne bismillahi rahmaani rahim rek benn muy faatiha mbaa ngay am ba ca ba ca ba ca bismillahi mu jiraaha wala nga am bismillahi rahmaani rahim nga voilà yooyu lañ doon jël di ko tënk su ko nga xam ne xale bi de bu mokkalee alquran buy tare su bëggee rungee nga xamante ni bi bu bëggee jaawale jóge fii dem fii day am lu ko téye mm. loolu la mbokk bi doon wax léegi naan maata magum maa te ma magum magum maa te magum ay ayta naara la ci ak naara ak maanaam ma afar aytu maatum ak afar aytumul maa ak afar aytumul naara loolu la doon loolu la doon tënk noonu magul kenn ndax moo mujj boo ne man nag léeg-léeg ma di ko jullee xam nga comme man sa yaay moom xam nga ay mbiram waaqi ah Ah. <laughs> ak am njëriñ. waaw man waaqia du ma ko caaxaane. parce que waaqia moom li ci yonent bi waxoon rek. sallallahu alayhi wa sallam xam nga dafa am ñoo xam ne ñun dañoo teel a ñàkk waajur bu góor. ñi teel a ñàkk waajur bu góor. boo jàngee yonent bi ne yéen ñu ko teel a ñàkk am ngeen waajur bu leen remplacer ci seeni dépense mm-hmm. ñu ne ko lan mu ne mooy suratu waaqia lam tusibu ah, faaqatun abadan doo ñàkk xam nga Abdallah ibn Mas'ud mm-hmm. yaram bi dafa sutaante ba mu toll ci waajtaay am ci saaba yi dem seeti ko ne ko loola jot mën leen dama feebar ñu ne ko teñ laa wutal docteur mu ne docteur bee ma jàpp bi mu ne docteur bee ma jàpp ñu xam ne sunu borom ma ko téye ñu ne ko ah te nu laa dem seetal borom dëkk bi amiral muminin ndax mu am lu mu collecté ci fonds yi ñëw dimbalee la ko mu ne bi may dund nanguwuma woon tàllal sama loxo duma dem ba nar faatu di tàllal sama loxo ñu ne xanaa nga bàyyi ko ak sa njaboot gu jigéen gi nga bàyyi mu ne ñaari doom yu jigéen la am jàngal naa leen isa waqaati wallaay ndeysaan oh, ma moo moo moo tax suñu daara yi jigéen ñi comme euh, temps bi yaatuwul di ñuy leen di jàngale mooy bu ñu jàngee ba mën ijji ba yem sorotu tiin nga xam ne gis nañu masque yépp mm-hmm. dañuy commencé nag di leen settee jàngal leen suratul mulk mm-hmm. ndax mulk moom almunjiya la ndax tànk yaa ngi koy jàng par jour doo gis mbugalu bàmmeel mm-hmm. xam nga nag lépp lu lay tere mbugalu bàmmeel ak yonent bi ni mu doon sonne ci mu muslu leen mbugalu bàmmeel moo tax moom ñun boobu la ñuy jëkkee sax bala ñoo ñëw ci dépense bi bu pexe bu pexe amoon mm. bu pexe amoon ba kenn mm. du fa romb mm. bu doon bu ñu mën tëb Mm. waaw jar na ñaan yàlla jar na ñaan yàlla ah am na ñoo xam ne oustaz du metti ndax bu ñu la nee teg rek malaayika rahma bu ñëw bu bu bu tontu li jubee macha allahu taala man huwa rabbuka te yow wóor na la ne allahu rabbi la woon a ah, ñu ne la kuy sa yonante yow wóor na la muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga defoon yonant waxuma niñ koy bëggee nii de mm, mm. mais ni niñ ko war a bëggee mooy li mu rëdd nga waaw tàng ci tëkki bi ndax waxoon na ne kullu naasi yadxuluuna aljannata qaalu wa man yaba ya rasulallah qaala man ataani wa man asaani kon ndekete sopp yonent bi dafa am nuñ koy soppe mu ngoog tey maa ngi dégg macha allah ce matin Thiané Diagne madame Mbeng def ci benn dugg bu am solo ci émission oustaz Pape Anne mhm. mu ne ko yow tax nga ba ñu bëgg yonent bi ba nga xam ne tiitalatuñ ñu ba ñuy ragal ne ñun li ñu defoon dina tax jaratul ñu bëgg yonent bi doo ndax du ñu demati àjjana waaye yombalal nga ñu ba ñun ñëpp ñeme nañu yonent bi bëgg nañu yonent bi macha allah madame Mbengue ma koy nuyu bu baax di ko ziyaara mu bokk moom it ci ay xaru xaritu yaa déggéen yi ak Nadura mm-hmm. ñoom tamit ñuy nit ñu baax oustaz suratul mulk benn waaqia mm-hmm. ñaar kaaf ñett yaasin suratu yaasin lii jeeg bu nekk bu ko défa de dama bëgg laa ko olof bu xóot si loxo ndeyjooram xam ngeen saa damay bëgg a wax làkk olof bu xóot tuuti yéen tamit <laughs> gis nga bu ko defee wóor na yàlla dootul sonal borom këram ci dépense dootul sonal ay càmmiñam bu ko ay càmmiñam meree duñ ko faale duñ ko nuyu duñ ko kii yoonam du ci nekk du sonal boroom këram dootul dem ci papaam doomam itam du leen laaj dara ndax wóor na ko ne waaqe moom saa yu ko daanalee li gën a yomb na nga def ko sa julli fajar wala sa julli gee rek kal ko foofu soo ko defee ku ñam xam ñi ñamoon de weddi wuñu ba tey alhamdulilah waaw kon nag loolu moom bokk na ci ñun tamit suñu xam-xam yu gàtt yi ñuy joxe dafa am solo waaw ndaxte vraiment te te guddul guddul guddul nekkul lu gudd nekkul lu gudd aka neexoon nag daara yi ñuy wax nii comme bésu alquran la tey muy leelatu qadr oustaz dafa am lu ci am solo torop muy qadar bi hmm, dogal bi waaw boobu nag dama koy bàyyeeg oustaz Assane hmm. nga wax nit ñi. Mhm. que yëf yi du xam nga suñu mag ñëpp. ñu si ëpp dañuy defe ne ci ñi jàngul laay wax nag bu ma waxee mag ñi waxuma suñu magu daara yi. Mhm. mais suñu mag yi nga xam ne xëy na ceddoog ak aada gi moo leen jiite. Mhm. dañ defoon ne asura. ci la ñuy def qadar bi. mais defe naa asura ak qadar bu ñu bu ñu firee ñaari baat yi xam ne qadar bii nag dëgg. ci la ñuy bind lépp luy xew déwén Oustaz Assane. Euh, indi nga tey loo xamante ni lu am solo la. Mm. waaye tam lu jar a faram fàcce <coughs> oustaz mm. loo xamante ni baax na ñu leeral ko mbokk jullit yi. Mm. gis nga boo xoolee li nga wax. fiihaa yufraqu kullu amrin hakim bii. Euh, Sayda Aïcha génn léegi wax ko. saar bi mu nekk rek. saar bi mu nekk. moo njëkk a jar a bàyyiloo nit ñi xel. ci yàlla bëgg a wax muy suratul duxaan. surat duxaan surat duxaan beneen du la. wattaq yawma ta'ti samaa bi duxaanin mm. mubiin yaghshaa an-naasa haadaa azaabun aliim. Allaahu akbar. yàlla buñ ko yàlla ci kaw di wax. bu demee ba takk comme niñ koy waxee ba takk bagage yi. ba dara desul lu dul dem ku nekk takk jël la nga am sa ëmb wala sa mbuus wala say valise pour dem pour suñu borom subhaanahu wa taala war a tukkal àdduna. nga yàlla bu muy wax lan la njëkk a wax xaamim xaamim moom jarul faram fàcce nee nañ yàlla mooy xam li muy si mais la mu si teg wal kitaabil mubin mu gëñ mm. waawul qasam wal kitaabil mubin maa ngi gëñ si téere bi nga xamante ni dara dara taxul ma wàccee ko si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu dul lu lëndëmoon mu leeral ko mm. waaye itam lu lëntoon seen xel yi mu leeral ko lu lëndëmaloon seen xol yi itam mu leeral ko moom alquran karim yàlla subhanahu wa taala gën ci gën boo xamante ni bu biir la mm-hmm. inna anzalnaahu fii laylatin mubaraka ndeysaan nee na alkitaabul mubin boobu di alquran bi nga xamante ni dara taxu ko jóg mm-hmm. lu dul leeral inna anzalnaahu fii laylatin mubaraka inna kunna munzirin mm-hmm. yàlla nee na maa ngi ko wàccee si guddi goo xamante ni guddi gu barkeel tedd la guddi goo xamante ni guddi gu gu gu tedd la guddi goo xamante ni guddi gu barkeel la. Mm. mais daf si am benn sew sew. Mm-hmm. xam nga mooy lan fa aaya ba jeexee innaa kunnaa munzirin. yàlla nee na maa ngi leen di alerter nag. Mm-hmm. avertissement si guddi gi maa ngi leen di avertir. Mm-hmm. ngeen bàyyi si xel bu baax a baax a baax a baax. dafa am loo xam ne suñu ko bëggee. oustaz moo junj ko léegi. du ay nelaw moo ñu koy may. déedéet déedéet. du euh, euh, euh, tendeefal moo ñu koy may. du toog di lee ak meew di waxtaan waxtaanu àdduna moo ñu koy may. la araykatu arab ba waxoon rek bi qadril kaddi tuktasabul maali du dëgg mm-hmm. man talabal ula sahiral layaali mm-hmm. maanaam dafa am loo xamante ni soo ko bëggee faw nga am foo jaar faw nga am coono yu bari yoo xamante ni moom ngay daj mais kan moo gën sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom li nga xam ne yàlla daf ne ko jéggal nañu ne say bàkkaar yi nga def ak yi ñëwagul mm-hmm. ba pare muy julli di jaamu boromam ba ay tànkam di neewi muy yeewaa këram ñu koy def ngir lan delloo suñu borom subhanahu wa taala yàlla nag ne guddi ji nag maa ngi leen si avertir hmm. inna kunna mundirin mu nekk lu xew mu nekk fiiha yufraqu kullu amrin hakim allahu akbar moom que ne guddi ji mu ngi ñëw kon li leen war si guddi gi muy ngeen jóg ngeen préparé parce que yaakaar naa kuy dem examen di nga di nga xoolaat sa leçon mhm. di nga xoolaat leçon yi nga jëloon bi école tàmbalee tijji ba ker fi nga xamante ni nee nañ la suba ngay def examen mhm. doo bàyyi benn leçon loolu mooy leen lépp loo xamante ni yow jullit bi sa soxla la woon wala lépp loo xamante ni defoon nga ko fi daaw ba ren dellu se na nga toog nga def autocritique def rétrospective comme ni ñu koy waxee si tubaab xoolaat sa rétroviseur. xaasibu anfusakum. qabla an tuxaasabu. <laughs> sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nga càmbar sa bopp càmbar leen seen bopp. Mm-hmm. laata ñu leen di càmbar. Mm-hmm. balaa ñu lay càmbar nag. yow day fekk nga càmbar sa bopp ba pare. càmbar sa bopp bi mooy nga xool li nga fi def daaw ak ren lan moo fi baax li nga fi def daaw ak ren lan moom moo fi nekk sofaan nga jël ko peser ko comme ni ñu koy waxee def le pour et le contre. Mm-hmm. bu fekkente ne lu baax li moo ëpp. nga gën a laxasaayuwaat ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seyda wax na ko ba bu fekkee guddi yi li mu si daan def mooy kaana ya suddul mizar dafa daan takk ndiggam gën góor góorgóorlu si jaamu yàlla bu fekkente ne sofaan yi nag moom moo ëpp mu yu ñaaw yi nga góor góorgóorlu ba yu ñaaw yooyu nga bañ ko répété waat nga def at tawba nasuuxa at tawba nasuuxa muy tuub goo xamante ni gu sell la mm-hmm. tuub gu gu laab parce que li nga koy wax rek yaay booy da nga koy wax mais mm-hmm. man dama naan Seyda loolu du si prêter sax attention li muy wax ni mu toll si dimanche fekkee fekke wallaahi. fekke. xéwal la. fiihaa yufraqu kullu amrin hakim. suñu borom am ñi nelaw tey mun na am bi ñuy um koor gi. Mhm. dara xoosu leen woon. dara dal leen kullu amrin hakim. Uh-huh. muy lépp loo xamante ni suñu borom subhaanahu wa taala sàkk na ko wala bind ko def ko si lawxul mahfuz rek keroog bés ni ki tey si laylatul qadr lañ koy wàccee ila sama i dunya commencé na di ko séddale ñi war a feebar. Mhm. ñi war a tëdd hôpital. ñi war a génn àdduna ñi amoon war a ñàkk waaw bi gën a metti ñii ñàkkoon war a am mm-hmm. boobu neex na ñii xamul woon war a xam boobu xamoon du ñu xamati ñii wéroon war a wéradi allahu akbar ñii wéradi woon war a wér ñi nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala dafa leen wàcceeloon nattu war ko teggi ak ñi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala dafa war a teg si ñoom nattu yépp mm-hmm. yàlla ne na fiihaa yufraqu kullu amrin guddi gu am solo ngoog de kon mm-hmm. oustaz Mor Seyda balaa ma la jox kàddu guddi gu mel noonu ku ko fekkee wallaay ne raw li Njaga Mbay ne woon am na loo xam ne ku ko fekkee war caa def lu baax ci jamono. waaye guddi gi ku yàlla may nga fekke ko nga war cee jóg jàmm ci yàlla. xam nga lu tax. Mhm. amran min indina inna kunna mursalin ndeysaan yàlla nee na mbir yooyu. Mhm. si man mii suñ si yàlla. laa kay bàyyi laa laa koy dogale. Mhm. mu bàyyi ko si ñun. bu boo feebaree si at mi bul na oustaz Assane la bul na Seyda la bul na oustaz Mor la yàlla ne ne amran min indina inna kunna mursalin te loolu dama ko def mu nekk man maa man maa yeble mu nekk mu nekk loo xamante ni ni'matan doon xéewal parce que léeg-léeg dara xew nga ne yàlla daf ma bañ wala léeg-léeg dara xew nga ne suñu borom subhanahu wa taala mu ngi mel ni man rek la bind te wa asa an tukrihu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa nee ne léeg-léeg ngeen bëgg dara di si xar seen tànk tubéy Seyda xanaa xamuloon ne am na ñoo xam ne keroog lañu doon xëccu bañ ko jotee la seen àdduna yàqu wala sax keroog la ñu dem mooy seen àdduna bu yàqu rek keroog la ñu gëj a xam lu xew su àdduna am ñoo xam ne lañ doon bañ hmm. ba mu yëgsee keroog la seen sutura teranga xéewal àdduna ak àllaaxira tàmbali asan takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum ah, wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam ma antum la ta'lamun comme yàlla nee ne moom moo xam ñun xamuñ dañ mhm. ko tàllal suñuy loxo si guddi yu yu mel nii ndax lan rahmatan min rabbik innahu huwa samiul alim wallaahi yàlla nee ne yërmande la guddi gii yërmande la bu ma wàccee oustaz laylatul qadri ñu ñu fi jiitu woon avant sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mais amuñ ko woon déedéet déedéet kon yàlla bu ñëwee ak guddu tollun si yërmande si xéewal si sutura si teranga kon lu si waay man tàllal loxo na ko def lu si waay man julli na ko def waaye surtout li nga wax sànq lu si waaye man si jàng alquranul karim na ko def ndax jeunes yi laay waxal fii si waaw xam nga xam nga oustaz sa mhm. morom yi ñu ci bëri ñu war nga wax ak ñoom mhm. ndax ñoom dañ leen di féetale defar mhm. reer yeeg lal basan yeek defar kafe Touba beek defar meew mi ñu toog ci buntu jàkk ji di waxtaan di dàqante di def ko pox foofu foofu laa bëggoon insister tuuti moom jar na bàyyi xel loolu du seen cër de wax naa la ko sànq bi qadril kaddi tuktasabul maali mm. du seen cër de man talabal ula sahiral layaali maanaam boo bëggee yàlla yéegal la si place yu kawe yi da ngay veiller guddi yi waxuñu ko veiller di ko nelaw suñu borom subhaanahu wa taala wax na ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam aqimi salaat li duluki shams ila xasaqi leyl wa quran alfajri inna quran alfajri kaana ah? mashhuda wa min alleyli fa tahajjat bihi naafilatan laka boo ko defee xam nga asa yàlla du mën na am mais asa an yabasaka rabbuka maqaaman mahmudan boo ko defee rek suñu borom subhaanahu wa taala teg la place boo xamante ni booy gërëm lay doon kon ndaw ñi ñii di defar café yeeg ñiy defar meew yeeg ñiy defar mburu si saucisson yeeg yooyu yëpp baax na mais nañu fexe nañ si julli nañ si jàng alquran li nga wax léegi nañ ko si def allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna xale yu jigéen yi nga xam ne dañu nekk si atelier yi di ñaw wala yor ay salon ñoom itam nañu fexe ba guddi yi nañ doon veillé si ñaw yi ak commande yi nañ ko bàyyi ñu dem ñu jaamu ji yàlla ndax kenn xamul kuy fekkee ëllëg ñu man maa ngi toog fii di wax dara biruma ne studio bi dinaa ko génn. wallaay yàlla na ko génn ak jàmm. dara biruma ne heure bii déwén dinaa fi toog. yàlla rek a xam dañuy ñaan yàlla fekkee ak gudd fan ak. exemple kay doy na si kër gi heure bii daaw saa yu ma génnoon bala maa jog fii Adja Degen moom may njëkk a woo. ni mu Seyda Seyda Seyda toj ngeen fi. Seyda toj ngeen fi wóor na yàlla. chaque jour su ma génnee moom may njëkk a woo apprécier. alhamdulilah daal ni ma boole naa ak diw nee naa ko leen ñawal boole naa ak na leen ñawal xoolal ren tey salaamaaleykum wa rahmatullah ah, ana mu tey ana Adja Degen salaamaaleykum cheikh bi ñu ngi lay ziar alhamdulilah macha allah oh, rëcc na mënuñu faram fàccali juste oustaz su ma koy jeexale daal mooy yàlla nee na laa ilaha huwa yuxyi yumit rabbukum wa rabbu abaikum al awalin xam ne amul benn buur boo xam ne mooy dogal wala moom mooy dindi mooy tege mooy teggile ku dul yàlla mi nga xam ne jaamu ko dana jariñ ñàkk koy jaamu day lore rabbukum wa rabbu aba awalin parce que yéen ak seen ay maam ak seen ay bàyyi tudd nga ko léegi mm-hmm. am ñoo xam ne ba ñu tegee seen loxo seen ndeyjoor si biir bàmmeel kenn xamul ñaata milliards yi at la nekk ay maam nekk ay bàyyi ñaata at lañ fa def yàlla rek ka xam kon yooyu balaa ñu si yegg suñu borom subhanahu wa taala di ñu xisaab comme ni ko Seyda waxe balaa ñu ñuy càmbar nañu càmbar suñu bopp xale yu jigéen yi xale yu góor yi nañu bàyyi atelier tailleur yi benn guddi sa àdduna ak sa àllaaxira defaru si yaakaar naa moo gën benn cinq cent mille ak yi ñëw ci seen bopp wax tailleur yi ak xale yu jigéen yi yi ak naa guddi goo xam ne sa àdduna ak sa moo siy defaroo te benn trois cent moo gën fuuf guddi nga bàyyi ko mu jàll si benn trois cent mille wala cinq cent mille francs boo xam xamante ne moom nga siy dox. parce que xam nga ñun dañu lii inna haula yuhibbuna al ajilata mm. inna haula yuhibbuna al ajilata jooju yàlla di wax. wala yasruna al axira. yàlla musal yàlla musal gis nga yuhibbuna al ajila dafa am ñoo xamante ne bi jàpp nañu ne lu ñu am ala la ko gën. xam nga xew. loolu lañ jàpp yuhibbuna al ajila lu ñu am rek ala ko gën. te loolu mooy li ngay wax nii dagg benn benn yitte bu ndaw ci sa activité ne yàlla séddee naa la parti bii ci guddi gii te mu may la wér. waaw kay loolu ci la la kàttan may la xel xañ ka ñu bari. kay loolu nga dagg benn benn fatra bu ndaw rek ne yàlla jox naa la lii. ah waaye alhaakumu takaasur rek. kay xam nga léegi Seyda ah. par exemple léegi euh, dafa li yàlla wax ci laylatul qadri xayrun min alfi xayrun min alfi shahr soo calculer alfi shahr da jox quatre vingt trois ans yu teg ay weer. wallaahi quatre vingt trois ans. juróom-ñett fukki at ak ñett. yu teg ci benn guddi. waaw te du guddi gi yépp de. déedéet déedéet. du guddi gi yépp de li nga ci mën. te sellal ko te yàlla tax. parce que Sayyidatuna Aïcha dafa ne sang bi sallallahu alayhi wa sallam. su ma ko fekkee loo ma ciy digal. mu ne ko waxal baat yi moom la euh, ay sa génne léegi mhm. moom la Aseyda wax démb mhm. maanaam baat yu gàtt la nga wax ko te mu nekk lu sincère xëy na li ngay jàpp ne sellagul moo tax nga koy wax autant de fois boole ci sa ñaari rakka yoo sellal boole sa njàngum alxuraan moo sellal maanaam séddal yàlla benn temps ci sa euh, ci sa guddi googu sunu boroom defal la quatre-vingt-trois ans yoo xamante ni bi ci guddi gii nga koy jël dajale ko maanaam mu may la bonusu 83 ans. allahu akbar. te fekk na yow amaguloo 83 ans mais dencal nañ la tuyaabay 83 ans. li ma wax sànq ne inna haula yuhibbuna al ajilata Seyda da ngay gis koo xamante ni kii day julli. ne asalaamualeykum. ci jàkka yi de. ne asalaamualeykum bu ne asalaamualeykum xam nga yéen daf leen wax bu ngeen ne asalaamualeykum wax fois. après ngeen def seen albaaqiyaatu saalihaat mais da ngay gis ko xam bu ne asalaamaaleykum rek dana ñokket imaam ngeen baal ma de damaa am ordonnance damaa feebar. allahu akbar yaqlul maal kooku est-ce que am na si jullit. loolu la mooy li ma lay wax ni yuhibbuuna al-aajila. c'est-à-dire waaw kay am na moment bu nga xamante ne bii moment bu valeur la moment bu cher la moment boo xamante ne bii. malaaka yaa ngi toog demaguñu. waaw li muy li muy présenté wu bariwul li ngay am sens bi bariwul. laa ilaha illa mais dañ ko dul profité dañ ko dul jéem a jéem a saisir dañ ko dul jéem a jël dañ ko dul jéem lii xam nga lu war a loolu oustaz lii sama yaay wax léegi alhaakumu takaasu xatta zurtumul maqaabir lan la mooy gravité bi xam nga gravité bi oustaz mooy bu fekkee ñun Sénégal dañoo jël alal rek valoriser ko hmm. leneen lu dul alal rek ñu teg ko ginnaaw oustaz fii ku riche rek ku bëri xaalis rek lañ teg na mooy lépp defe nañ ne àdduna yëpp alal la te wallahi azim alal tus. déedéet nafs waaw xam nga bu fekkee ne yow ki am alal mooy juddu bu rëy. ki am alal yow léeg-léeg ñu topp kenn mu wóor la ne lii ñu koy waxal. dara du ci dëgg. dërëmam rek moo tax léegi léeg nga gis dëj bu ñu rëyal mu wóor la ne dëj bi dara taxul xam ñoo gën a xam ne ki dem musul jaamu yàlla. mais témoignage yañ fay def ak lañ koy discours teg ko di ko discours lépp ngir dërëmam yi ñuy yaakaar jële loolu la ubbee ma ne waxal ki lu baax te li ngay waxal dara amul ci nga gis miskinu yàlla boo xam ne wóor la ne kii jaamkatu yàlla piir la moo taxoon démb ma ne la man dama préféré comme sa waa ji nga nga nettali démb mm-hmm. ki for xaalis boobu 375 te wóor na ko ne 15 fanaanul këram ah. mu dem ba bëgg ko utiliser delluwaat ci ginnaaw am na ñu ko apprécier de mm, gis nga démb soxna Anna Ndiaye mu nekk aja daara aji bint Thiaw nee na ñoom dañu toogoon di ko seetaan mais nee na moo mujj nekk débat bi yàlla xam na ne maa ko fekk nee na mujj gi démb ba Anna dafa proposé sax ne ma soxna Fatou Bintu lan la ñuy def mu ne ma wutal sa quelque xarit ma wut au moins ñu def quinze 15000 mille ñu fexe dajale jëndal ndaw si frigo wala congélateur ma ne ko loolu dañ koy def benn mbooloo moo xam ne léegi dañuy def ne weer wu jot wala bés bu nekk lu waaye am dugal ci ñu seet ñoo ñun nañ lañ leen di préfinancé nga xam ne duñu tàllal kenn loxo suñu si nag première dame fekk see falilaahi alhamdu bu ñu ci jabaru ministre fekk see falilaahi alhamdu bu ñu ci euh, ñi am fekk see mais ñun li ñu am akus néew parce que oustaz xam nga boo nee damay xaar ba am doo def dara li ñu am lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti mun nañ koo bokk wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim wa man yuqa suuxa nafsihi waaw xam nga saydatuna Fatima keroog ba muy wajtimuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira mais amul woon ñaar mm, mm, mm, benn lu mu wooroon togg ko war koo ndogoo la joxe joxewaat ko joxewaat ko ba muy trois jours. ba léegi yàlla di ko tagg. ba léegi yàlla di ko te dañ koy wax ba keroog yowmal qiyaamati. ba léegi yàlla di ko tagg. te ku ko ci roy. te ku ko ci roy. yiw wi mu am sa ba yowmal qiyaamati. ba yowmal qiyaamati kon léegi oustaz xam nga man nee naa li tax boo gisee ñu bëri dañ may wax ne ma danga nga sàggan. yow ni ngay demee Arabie Saoudite te munoo fexe ba am projet benn école wala benn daara man leen man ba ma demee ca Iras dem ca Dubaay ba dem bu màkk ba ñu won ma carnet bi ñu won ma ne ma jàkk ji ñu tabax senegal ci tel jàkk kiy sang niiw moo ko fa tabax mm-hmm. moo ko yónnee ku mel ni Moustapha Sall ndeysaan bi muy dund yàlla na ko yàlla yërëm ak njabootam oustaz ñu won ma ne ma sangkatu niiw ñu wax ma li muy fayu man mu wóor ma économiser mu wóor ma ne kii maa ko ëpp alal mm-hmm. ñu waxaan ma keneen koo xam ne dañ koo maye ñu jox ko canam dotam mu ne dot bi nañ ko yónnee Afrique tabaxal ma ko jàkk jëkkëram ne ko man tamit damay bëgg bu àjjanaa dooma héberger man it ma am ma am néeg sato comme yow moom it mu yónnee pour ñu tabaxal leen jàkk ñun ñu tabaxal ñu ñun ñu yore ay milliards toog ci di ko noos di julli ji foofu ngay julli si jàkk koñ boo xam ne da nga xaar pour pour benn projet tabaxal la ko fekk yow yow ki ko tabax sangkatu niiw la Seyda dama wax barki dem ci rajo bi man yi mm. mag ñi bu njëkk dañoo amoon dignité waaw dañoo amoon dignité mooy du ñu lebi fekk am nañu yére bu ñu mën a tayle hmm. mbaa takkaay bu ñu mën a tayle du ñu tàllal loxo fekk denc nañu ñaari mbubb da gis ku yor ñaari téléphone hmm. ba noppi di di di tàllal loxo wala dina ñaan téléphone waaw oustaz oustaz encore eh, xam nga xam nga iraasa yooyu ndaw si day ñëw xool photo yi ñu teg photo jirim yi bëri na ku lay wax ne la sama jëkkër dafa gaañu toppatool ma jirim yi fekk ki ki ki pare ne doomam di ko fay moom li mu denc mun na jënd kooku mais nag c'est domage li ko waral mooy organisation bi moo des fii ci réew mi moo tax nag ñun ñu des jël décision di ndaxte saa yoo yëkkatee dégg lu jar nga teg. Mm-hmm. mais nag fekk bàyyiwuñu ñuy wax ñun ñu continuer di def te talal suñu loxo bii tëral ci suñu bopp ci suñu biir bàmmeel rek du ñu dem. ndaxte itam oustaz man dama gis ne. Euh, lii taxaw ci bunt bi fii léegi bi may dugg si am na ko yore doom xale baa ngi may xool di ree sama àddunaa ngi jaxasoo nga xool ñaata ñooy ñëw sa kër ñaata ñooy ñëw sama kër ñaata ñooy ñëw kër ku mel ni yéen ah ak ñeneen ñi amit ñu ngi def mais doyul léegi nan la ñuy fexe ba dajale loolu au moins ñu def suñu ay formation euh, ay euh, financement yoo xam ne duñ ci xaar gouvernement. parce que gouvernement mënul lépp. oustaz dafa am loo askan a koy def. askan a koy def. dafa loo xam ne ñoo koy. Ah, ñoom carnet bi rek la ñuy teg teg foto xale yi boo ñëwee nga xool xale bi nga ne léegi xale bi man fii ba muy am 18 ans chaque mois nañu jël ci sama salaire 10 000 francs lu mu lay wàññi ku am 1 million am 500000 salaire bu ñu jëlee ci sa salaire 10 000 francs te 10 000 boobu bu ñu ko jëlalee juróomi nit day nekk 50000 ñu koy verser benn orphelin benn yiti yatim mais da koy jëriñ comme bourse yi président def. ñu ngi koy xeeb di wax naan tekkiwul dara mais am na koo xam ne ba mu hmm. bañ ko koy jox <laughs> dafa ne ba mu juddoo ba tey musul am junni am na ñoo xam ne ba ñu juddoo ba nii ñu màggee ba sëy suñu yore junni bu ñu moomal seen bopp boo ko boo ko joxee fukki junni ak juróom bourse wala tey ñun jigéen ñi ñu dajale ñëw sa kër xool lan nga ñàkk ñu defal la ko te gis nga oustaz damay faral di wax sama mbokku jigéen yi ma ne jigéen bu jooy moroomu jigéen ama ko jooy loo waaye jigéen bu ñu fi jàppale ñun ñii bu ñu góor góorgóorloo wàññi cérémonie am mm-hmm. wàññi suñu suñu sagar yi wallahi oustaz. Mhm. léegi ñu ñu defar réew mi. sant yàlla alhamdulilah macha allah su ko defee. waaw loolu moom mat a bàyyi xel la. mooy mhm. li li li Seyda wax. Mhm. Eh, ci wàllu ñi ut financement yi ci jàkka yeeg jumaa yi. wane na ni ñaari mbir wane na ko. bu njëkk bi koo xamante ni kii day sang néew. commune bi di ko fay. la muy gagné di ci dundal njabootam ca lay coppati. di ko dajale pour mu dem ci ci néew. ñu yónnee ñu ko Afrique tabaxe ko jàkk tabaxe ko jàkk yow nga mm. nekk milliardaire nga dëkk si koñ bi. ngay dem di julli si jàkk boobu. si jàkk boo xamante ni te yow te yow sa sa benn am na ku ko wax démb ci ban télé laa ko seetaan. mu ne bari na koo xam ne ndogoom. ndogoom fay na saleeru u nit. alhamdulilah dëgg salaam. ñu ngi lay ziar cheikh bi. ñoo ngi ziare bu baax sëñ bi. jërë ngeen jëf macha allah. ñoo ngi am mbégte lool dafa mel ni nekkul xanaa direct ci émission bi de. waaw yaa ngi en direct incha allah. ñoo ngi direct. waaw yaa ngi direct waaw. waaw dafa am euh, mbégte boo xam ne rek moo tax may woote. dëgg la. ndax dama dégg ngeen wax ay saar yu am solo ci alxuraan. Mhm. fekk nag man ma yor benn téere bu ñuy wax sayat foofu. est-ce que. bu ñuy wax. nga xam ni. sa saar yu ñu dëggalee sayat foofu. ah waaw sajda yaasin waaw duxaan fatihi waaqiaat mulk waaqiaat mulk wallaay ndeysaan ma dégg yooyu yëpp ngeen boole leen tudd mm-hmm. aya allo allo ñu ngi ngi lay dégg sëriñ bi allo allo waaw ñu ngi lay dégg waaw ñu loolu lépp nag ma déglu ko muy ay njariñ lool lool may ñaan sa borom yàlla mi nga xam ne moo am pay bu fayal leen boppam. amiin amiin yaa rabbal man maa ngi tudd El Hadj Magaye ña ngi dëkk Thiès waaye nag dama koy jàng bis bu ne. de ci dugalaale rek. <laughs> waaw maa ngi leen ciy dugalaale ndax sax nag am naa ci njëriñ yoo xam ne tey jii dama ko doon jàng ngir bëgg ko. macha allah. ngir man damay defee nii bu yàlla dogaloon ma faatu sax nañ ma ko yoreel yaasin sange ma ko ndax moom ma bëgg la. <laughs> yàlla lay teere yaasin mooy mooy xolu alquran. man de mooy sama xol. est-ce que mbaa mbaa am nga soxna bu tudd yaasin. am naa doom ju tudd yaasin am naa soxna su waa léegi ñaata ñaata soxna nga am ñeent. <laughs> non ñaar ah, kon ñetteel beeg ñeenteel bi nañ tudd yaasin ci laay gëm nag bëgg nga yaasin. mbir mi ngi lool. Oh. lii mooy lii la wolof di tuddee Mbay Dàgg. Ah, ah, mooy li nga doon wax. keneen ñëw wane wane preuve yi. dama damaa bay ba sama tool jaar yoon. Mhm. li koy wane mooy fa ngay bojje la ñuy xamee ne sa tool jaar na yoon. ndeysaan macha allah. moom nee na dañuy wax loolu. Mhm. moom mi ngi yor téere di jàng yooyu. Mhm. xam naa ni dañoo amul jigéen ki bind yóbbalu jullit nu mu tuddati. Eh, Touré daam Ahmed Dame Touré. moom tamit bind na ci lu am solo. ñu ngi koy mu ngi dund ñu ngi koy bu baax. waaw dafa xaw a màggee bi ma ko. waaw waaw bi ko mujjee gis fii ñëwoon na fii ba ci kër gi indil ñu téere bi di ñu ko may. mu ngi ko bind France Zadul Muslim yóbbal yóbbalu pour pour wane ni rek xam nga maanaam yàgg nañu Sénégal yàgg nañu bëgg lu baax. <laughs> yàgg nañu bëgg lu baax xam nga mbokk bi li mu li mu seede nii loolu lu am solo la Euh, Seyda mhm. ñun daal nañu nañu nañu feddaliwaat laxasaay surtout te bu ñu yem ci wax ji léegi nañu jëmbat lu tax nit ñi mën a génn ci ay jafe-jafe xel yi ñu ngi fi xam-xam yi mi ngi fi njub gaa ngi fi Seyda Assane boo jëlee ki mu war a ñëw. salaamaaleykum. waaw yaay booy. maa ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla. ñu delloo ziar bu baax macha allah yàlla taxaw leen bu baax. dama soxla woon Seyda Fatou Bintou. mu ngi nii toog di waaw maa ngi lay déglu. Seyda Fatou Bintou maa ngi lay ziar di lay ñaan ñaanal yàlla yow ak ñi nga toog. wallaay tur bi man la madame Diagne Seynabou. bu ñoo ngi ziar bu baax madame Diagne. waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax dama. dama bëggoon sa numéro nag pour affaire boobu nga wax ci seen cotisation yooyu ngeen def. pour waaw ñu ñuy def noonu. waaw waa Régie dinañ joxe boo boo wootee foofu rek ñu jox la ko léegi. waaw d'accord waaw waaw pour que ñu mun a xool nu ñuy ci jàppe waaw na leen yàlla fay ci li ngeen di def ci. amiin amiin amiin Diagne yàlla taxawu leen bu baax a amiin amiin amiin. te lu ñuy ñaan ci guddi gi te yar nañ ko yàlla boole ko amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin jërëjëf amiin ngay sant di la gërëm bu baax jërëjëf jërëjëf wallaay ndeysaan maa la raw merci beaucoup merci jërëjëf maa ngi nuyu euh, bu baax a baax wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf est-ce que mhm. Seyd Hassan dafa naa ni mhm. euh, alquran a ngoog mhm. koor buñ ci génnee nit ñi dañ doon war a yëg ni dañ doon jaamu yàlla te jaamu yàlla comme ni ma ko waxee ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla ci jaami yàlla yi que lii nu fi tëral nii xalaat ko euh, wax ko bu nu yàlla dimbalee ñu jëmmal ko yàlla may na nu fekke ba kooru déwén jaamu yàlla yooyu ñu ko jox mhm. dootuñu dagge seen kër mhm. bàyyi seen njaboot di ñëw taxawaalu ci buntu rajo yi ak bunti télé yi dëgg la oustaz am na itam nit ñu baax ñoo xam ne mm-hmm. xam nga tey ku fi jël benn orchestre commencé suñu borom kër gi mm-hmm. ñaata nga koy fay pour mu defal la soirée nga jël oustaz buy def conférence mm-hmm. nga xam ne ñun ñu ngi ci rek diggante fukki junni yee fukki junni ak juróom yi am na ñu koy ëppal nag waxuñu sax ñun xeebuñu ndax ñun fayewuñu kenn laaj laajuñu kenn waaye tamit nga ñëw toog def rek ndaw si nga dugg rek teg sa tànk rek mu ne jox naa la billet Makka ak devise bala ngaa commencé sa conférence ndax dalaloo kiy waxtaan pour waxtaanam gën a neex xam nga kooku dootul wax mukk ngir weccet yi nekk ci table bi wala lu jëm ci poosam te Nafissatou Cissé nag Jóob loolu la ma defal te billet boobu bi ma ko joxee am nañu doon wax politicien bu ñu la joxee billet moom de démb daf maa wone ma sa chèque a ngi nii xam nga li nga doon wax ne kilifa googu nee na yu baax yi mm. nañ ko wax siiwal waaw xam nga ku la jox chèque 3 millions ne la demal màkkatal mukarrama mm. kooku bëgg na sa waxtaan bi ngay waxtaan sa xel dal nga xam li ngay wax te jar na ko ndax benn xaalallahu la an yahdiyaka Allahu. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés bu nekk Oustaz Assane. Mm-hmm. parce que da ngay gis koo xam ne daa ah loolu ëpp na Oustaz si loolu ëpp na jox ko rek lii nàngam. <laughs> xaaral ma jëlee ko ci ligne Assane après ñu ñëw incha allah. Oustaz loolu am na solo de <laughs> maa ngi ci lay jëm. te léegi moo tax bi may julli démb yëpp mënu maa xam lu dul rek moom di ko ñaanal rek. julli gi yëpp léeg-léeg ma ne su ma nee Allahu akbar. salaamaaleykum daal di mettre nafsa yàlla na ko yàlla may lu bëri. amiin amiin amiin salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi ziar soxna si. ñoo leen delloo ziar. allo Assane. waaw. na ngeen def ñu ngi leen di ziar. ñu la koy delloo bu baax macha allah. di leen a baax yàlla seen taxawaay rafet na. jazakumullah xayran. allo. ndeysaan ndeysaan mel ni rëcc na. mais mais xam nga euh, nangam doy na pour oustaz bi wala nangam doy na pour imam bi wala nangam doy na pour jullit bi te fekke na yow. oustaz xam nga dem ba dañu fi wax Seyda wax na ko léegi waxu imaam yi. Mhm. ak oustaz yi. Mhm. ñun. Mhm. la waaja la waaja defoon rek ñëw jox naayib ba segu un million. kay bale jàkk ja un million. kay fomp un bi toog di xaar tuuram mu ñëw na ko yow moom comme yaay jiite yàlla laa lay bàyyeel yàlla laa lay fay. mu ne ko bu ma bàyyeex yàlla bu ma bàyyeex benn yàlla c'est que dañu war a bàyyi oustaz ak imaam yi ñu di leen wax bàyyi naa leen ak yàlla bu bu leen ñu di bàyyi ak yàlla dafa am loo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala moo koy nattoo jaamam parce que oustaz bi toog di wax wala imam bi nekk si jàkka ji di jiite wala si jumaa ji la muy def nattu yàlla la. Eh, kooku moo gën a xam ne imam kenn du ko bàyyi ak yàlla. Ah, noonu kese imam bi am ful la nekk bu ma bàyyi yàlla. jox ma ci un million ba pare bàyyi ma yàlla. waaw kay waaye ba yàlla moo lay fay jox ñëpp ba pare nekk yow moom comme yaa ñuy jiite bàyyi naa la ak yàlla mu nekk moom bàyyi ak yàlla yii nattu la maanaam imagine julli ni mu diisee. ñu jël nit yeneen ko yow la ñu wóolu ci sa màndute yow la ñu wóolu ci sa xam-xam. jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal kooku. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz na ngeen defal coono. ñu ngi lay ñu ngi fi ñuy sant yàlla bu baax alhamdulilah. ñu ngi leen di ziar bu baax di rafetlu seen toogaay. ñu ngi la koy delloo bu baax cheikh bi. Eh, li ngeen di wax dafa am solo trop. jërëjëf jërëjëf. ñun de ngi woote bu Mauritanie. jazakumullah xayran ndeysaan naka waa Mauritanie. macha allah alhamdulilah alhamdulilah ziar bu baax di rafetlu seen toogaay. am jërëjëf. li ngeen di wax dafa am solo trop. Mhm. ndax da ngay gis nit ñi di dajale. di dajale di ko wutal ay sëriñ yi nga xamante ñi ngi garder ay millions. Mm-hmm. ay kër yu bëri ñoom amuñu sax lu ñu lekk. est ñu ñu dëkkaale amuñu sax lu ñu lekk. ndeysaan ñu koy jox ay sëriñ yi nga xamante ni ñi ngi am lu àdduna ak li ci biiram toog. ñi koy dajale di ko jox borom alal yi nga xam te ñi ngi am àdduna ak li ci biiram toog. te néew yi dool yaa ngi seen wet. jirim yaa ngi seen wet. ah moo tax li ngeen di wax dafa am solo. bu ñu leen di jox néew ju doole weccet lañ koy jox weccet lañ koy jox wala kayitu téeméer foofu rek nag laa meree président Macky Sall kayitu téeméer boobu weer bu dee nga nga jël sa salaire nga jël ah. benn junne. waaw wala ñaari junne comme li Seydina Aïcha wax. Ah. nga dajale ko bu mu bëree jox ko benn jirim bi nga xamante ne amul lu mu lekk amul lu mu naan. ndeysaan kooku mooy yàlla bu ñëwee ci yow. macha allah kenn xamul lu ñu koy fayee bu la mm. neexee sax kooku boo koy def bu la neexee boo jullee bu ci teg leneen mm-hmm. yow nga dajale lu yëpp jox borom alal bi nga xamante ni moo la ëpp ëppale téeméeri junne yoon seetal ki ngay wax ci sang néew jël alalam yëpp mu leer na la yow da ngay gis kenn ku nekk Mauritanie wala kenn ku nekk Sénégal ëppale ko téeméeri junne yoon mm-hmm. yow nga jël kee jël li mu am yëpp àdduna ak li ci biiram lu mu waroon dundee dundal njabootam yëpp defar defar ka néegu yàlla bi nga xamante ni daf ciy profité pour yowmal xiyam mu am lu mu jëriñoo. mu am sato ca àjjana. gis nga loolu. am sato bu rëy boobu. Mm-hmm. yow nga jël loolu yëpp jox ko kenn ki nga xamante ni am na am na alal bu la bu la ëppale. wallaay ñun daal alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla rek jërëjëf yéen ñi ngi rafetlu seen teewaay di. ñaan leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen seen mën amiin di wax ni ñu ngi rafetlu bu baax. wax dëgg yàlla bu nu amoon seeni genre fii si di mhm. dañuy sant yàlla yokk lu ñu daan sant. ah ñu ngi kontaan di rafet lu di di ñaan yàlla di déglu toujours seen i xam-xam ak seen i kii yu rafet yu sell. di leen ñaanal nag di leen ñaanal lu ñuy ñaanal sunu bopp di leen wax ni nag ngeen waxal ñu tuuti si ngëneelu laylatul xadri. incha allah ngeen waxal ñu lan la def si guddi gi. wax ñu lépp yi nga mhm. xamante ni comme na. seen i kàddu rafet yàlla def na dénk na leen ay xam-xam yu ngeen di jëriñ doomu aadama yi. Mm-hmm. duñ leen di ñaanal yàlla bàyyi leen suñu kanam ba ci kanam a kanam. TFM kenn mënu ko fay ci àdduna. TFM mm-hmm. doon na tele bi nga xam te ni ah ñun de waa Cambérène. Mm-hmm. ñun waa Cambérène. Mauritanie la ñu nekk. xam naa ni bëriwul ñu ko xam. waaye ñun waa Cambérène ñu ngi lu tele bu mel ni TFM di ci. xëy guddi bëccëg bañ na bu fii kuy jàpp rek léegi da ngay wax ni sama antenne def leen ko TFM. est-ce que est-ce que. fii bañ na bu kuy képp kuy seetaan télé léegi da ngay wax ni defal ma tourneel ma TFM ndax moo am ay ngëneel yi nga xamante ni moom rek moo nu mën a jëriñ. alhamdulilah rabbil alamin. jërëjëf ñun de wax dëgg yàlla kontaan nañu te di leen ñaanal ñaan bu ñuy ñaanal suñu bopp ñu ngi leen koy ñaanal di leen ñaanal di duñu tàyyi ci di leen ñaanal ndax yéen a nu gën a dolli teg ci yoonu siraatal mustaqim. alhamdulilah allah yu jaazikal xayr ndeysaan. ñu ngi leen jërëjëf jërëjëf. baarakallah jërëjëf Oustaz kii kii kii dalal nañu xam naa ne temps bi moom sori na. waaye Oustaz bu ndaw rek bu sew laa ciy teg. Mm-hmm. xam nga tey Oustaz biy jàngale ci koñ bi wala sëriñu daara bi. ñaat téeméeram yooyu bala cee jot dinañu fay courant fay ndox fay mbindaan ba. fay chauffeur ba fay macha allahu taala ñëpp. fay jaaykatu dund ba lépp ci kër gi ñu def ko oustaz bi saa yu yabalee bu reppee nag ba ne xale bi dama nga ne sa yaay jox la keroog tama ëpp koy buum da ngay gis ne pour 1000 francs boobu te yow bu dee ne école française ba wala école ba nga ko yóbbu ci beneen diine ba ma nga yaa ngay fay vingt mille danga leen di defal chèque soldeel leen ko mm-hmm. mais bii sa diine oustaz ba léegi Sénégal dañoo desee di faral suñu diine dëgg la oustaz wallahi azim da seet école yi rek yow sa doom école arabe bi nekk fii nekk franco arabe mu wóor la ne xale bi boo ko fa dugalee balaa am at oustaz dina jàng ba mokkal ba sorotoo am mayeta saalu na lu mu néew néew sama sët bee nga xam ne ñetti at la am daf maa tari ba ki dem ba xul yaa na may jooy mu jàngal ma rabbana naa te jardin la nekk jardin bi il faut ma tudd ko muy euh, jardin bi nga xam ne moo nekk ak euh, Grand Yoff Bouchra xale bi ñetti at ñetti at motagul ñu ñu jàngal ko te alquran mooy lii yomb pour nit mën ko hmm. ndax xale bu amul ñetti at su ma nee jàng la madame dooy ci boppam hmm. di doon jàng tabaraka lazi bi yadil mulk di ko jàng tabaraka lazi tabaraka lazi mu tëdd fi mu tëdd mu ngay fowe mu ngay fode mu ne ko bi yadil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir mu ne ma tey nag moom tey rek laay dem xar alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy mooy ne wala qad yassarna alqurana fa hal min mudakkir kon kon même ku am quatre-vingts ans hmm. bu ijjantoo rek man am na ñoo xam ne dañ ma naan wutal ñu kiis mhm. jarul kiis wutal ustaaza bu mel ni Marème Lo wala ku mel ni Aïda Mbaye wala ku mel ni Fat Kayre ne ko sama xam kiis bi gaaw ci kiis waaw lu ñuy jàng de déedéet jub jub jub jub kiis ah. kon boog oustaz wax na jub waaw mooy kiis bi gaaw su ko defee oustaz macha allahu taala nañu sant yàlla bu baax di wax ne lii ñuy wax dañ koo waxal comme ñun ñoo nekk ci waxukaay yi di gërëm itam ki ñi may benn nit neena ma na sant yàlla Seyda Fatou Bintou mu ne ma lii ngeen ñemee wax seen tele mm-hmm. ñun tele ba ñuy liggéey ñemewuñ ko faa wax mu ne liberté bi leen Youssou Ndour may mm-hmm. ngeen di wax seen doléance di wax lu baaxal nit ñi di wax lu rafetal mu ne am na tele yoo xam ne di yëgle seen i conférence dafa xam ne dafa xam ne responsable lañu waaw loolu la xam waaw mais mais mais il faut ñu gërëm ko ci hmm. man su ma amee sama conférence ñu ñëw fay bu ma neexee jàllale ko ci hmm. bu ma amee sama cant bu ma amee samay tukki léegi sax fan yi bu may dem ngénte waaw di ko di ko ci dugal <laughs> mais loolu oustaz même bu desee benn mi ni oustaz ñun ñëpp war nañoo ànd technicien yi waaw waa commercial Pape Samb mii di réaliser nga xam ne xale bu bu bu bu baax la amul morom bëgg diine mm-hmm. ñoom vie ñoom euh, Babacar ñoom waa laa sana am am nag sama amu bopp la am moomu yàlla na ko yàlla fay damay gis muy daw bay fa astal ndeysaan ñoom ñoom bi euh, Moaz moo tax mi ma yóbbante nuyoo ci mm. madame Ndaw madame Ndaw ñu ngi ko koy nuyul biopharma ah suñu amee ku génn àdduna bu ñu amee ku génn àdduna ñu toog fi tàggee ko suñu ay xarit suñu ay am di jàmm jàmm mais ki jàmmal moo moo moo am na solo kon nag ñu ngi ñaanal waa TFM ñun kenn takkuñu buum ci kii parce que bu ñu ko takkoon ñu toog kër ga kon nag ñu ngi ñaan yàlla lu mu mën ren yàlla na mën déwén du ko ëpp yàlla nañ dund ba suñu TFM religion bii mm. nekk number one nag ndax man oustaz dama bëgg ñu jàpp ci jàpp boo xam ne bu déwénee bu ñu toogaatee fii dañ naan TFM religion euh, sunna télé yëpp barakallah eh, su ko defee Hassan waaw oustaz amoon bëgg te jàkkaarloo ak téléspectateurs yi rek di ah. ziar bu baax Adja gas Gueye depuis Londres ak Yaa Fatou Tall depuis Suède Seyda loolu lay. Gass Gueye man Londres waxuma Norvège de Londres. yaay Fatou Tall depuis Suède euh, di ñaanal borom kër gi comme ni ñu koy waxee mu ngi ni ma bindoon si kayit gi ak Mara Dieng suñu nijaay ji koy jàppale si liggéey bi ndax ku ñeme dañ la déey hmm. dëgg yàlla te bàyyi nañu ak liberté totale comme ni ko oustaz Mor waxee xam ne ay responsable la hmm. ñuy wax rek si responsabilité lañ koy teg ñu koy hmm. ñaanal yàlla yàlla gën ko sàmm gën ko aar sàmm ay way juram suñu maam day soxna Mbuub ak maam Ilman Ndour ñu ngi leen di ñaanal suñu sëriñ sëriñ Maodo si ak njabootu Seydil Hadji Malick yëpp radiyallahu taala anhu ñu leen di ñaanal gudd itam di ziar bu baax sa xarit sa soppe euh, oustaz imam Amar Ñang démb nee na imaam yi li ñu fi wax daal imaam yëpp lañ yóbbaale imaam Amar bu yoof ñu ngi koy nuyu ñu gën ko xam si imaam Njool ak sama xarit moom jëloon na sama numéro mais ba léegi dégg guma ko président Baro maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ziar waa Gambie yëpp koor gi léegi waaw sama nuroowaale ak Moussa Diawara di doom si ancien président Daouda Diawara moom dafa ñëw ba fii cette semaine ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar fu mu mën nekk si àdduna comme du toog ak soxna May Savek moom moo yore ji diine ji foofu ci rajo bi kon Adja May Savek ñu ngi koy nuyu bu baax kon nuyoo bàyyi noonu oustaz mo di mhm. jox rendez-vous mbokk yi ëllëg insha allah président Baro nag mu jox soxna yi nuyoo bi ñoom ñaar ñëpp insha allah barakallah mbokk yi mu ngi noonu li aju ci laylatul qadr mhm. du jeex parce que bu la tey rëccee tamit ginnaaw suba ci guddi ñu ko dabuwaat. laylatu xatmiya bi. waaw mooy ah. mooy vendredi ci guddi. waaw waaw sa bu xam naa bu subaa dinañ waxtaan ci lan mooy laylatul xatm est-ce que suba dinañ mën a ñëw ndax bu ñu fanaanee suba incha allah incha allah ah bu ñu fanaanee julli ba kon si fii su ko defee ñu ngi ñu ñu wax rek ni la nit ñi euh, ku nekk li nga mën dundal ci laylatul xadri ko dundal ci gis nga am na ñu soxna doon wax naan ñiy servir même mën ngay yëkkati palaat di tegal nit wala ngay jox kaasu ataaya boole ko tudd yàlla ba muy dugg. Hmm. li bon mooy neenal ko niinal ko loolu moo ci bon su ko defee ñi ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp. madame Ndaw biopharma boo nekk fële Dakar Plateau ak euh, Babacar Ndaw moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax di leen ziyaara tabaarakallaahu di ñaan yàlla suñu borom yàlla na yàlla nangul ñu gërëm suñu caméraman yi preneur de son yi réalisateur yi technicien yi borom kër gi surtout ak mhm. maquilleuse bi seen mhm. soxna Yacine mhm. ñu nuyu ko ziyaar ko bu baax a baax nuyu suñu njaboot nuyu ñëpp baalu ñëpp ak yàlla na yàlla boole baal ñu ngi leen di fa euh, sàkku ci yéen ñaan duñ leen fàtte incha allahu taala ba jàmm incha allah ñu dellu si waat ko incha allah ci yeneen jotaay ci kàttanu yàlla salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala. يا صل وسلم